ñu ngi dalal tey ak mbégte mu rëy Mamadou Kassé directeur général SICAP SA nekk itam membre ci task force républicaine Benno Bokk Yaakaar ak itam euh, di urbaniste aménagiste euh, ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm euh, Mamadou Kassé ci plateau matinal Rewmi FM. Fatou ñu ngi lay fay di rafetlu également li nga ñu dalal ci sa jataay bii nga xamante ne jataay bu am solo la. ci rajo bii nga xamante ne aussi rajo bu am solo la muy réew mi FM ñuy profité waale. di nuyu ñi nga xamante ne tey jii nii jël nañu seen jot di nu déglu. jërëjëf alors euh, ci casquette urbaniste aménagiste la ñuy tàmbalee waxtaan bi euh, daal di lay interpeller ci inondation yi nga xam ni tàmbali nañu feeñaat ci yenn gox donte euh, état bi wax na ni def na ay effort yu am solo ci yow yu le gox mais daal ba léegi jafe-jafe bi moom jugu fi. waaw jàpp naa ne ci surtout ci effort boobu lay wax. nga baal ma ci bi ñuy wax ni laay gis ne euh, suma frère suma xarit muy euh, Mamadou Mamoun Samb euh, bi nga xamante ne moo créé Socabek dafa wàcc liggéey sunu mbokk la nag parce que li tax ma wax loolu mooy que promoteur immobilier bu mag la woon yàlla na yàlla xare ko àjjana li mu bëgg a wax ci mbirum inondation yaa ko waxal sa bopp da ne gis nañu effort yi nga xamante ne état def na ko waaye terewul ba tey ñi ngi wéy di am ay jafe-jafe euh, saa su nga xamante ne euh, ndox mi wàcc na ci nawet bi waaw xam nga loolu d'abord da ngay xool fa mu jóge te jàpp naa ne fukki at yu mujj yi Sénégal mësul am ay jéego yoo xamante ne gën na rafet jéego yi ñu def ci wàllu inondation ci fukki at yi mujj yi te dinaa la wax lu tax parce que à chaque fois dañ daan régler ay problème ay plan Orsec ay fexe gaawantu lijjanti ay euh, pompe sànni mais mësuñu gis vraiment ay ouvrage yu important yoo xamante ne tabax nañ ko ci wàllu boobu bu mu mën a génnee ay nit ñoo xamante ne dañ daan ne ci ndox mi saa su ne mu génne leen ci. ah mais président Wade def na fi ay plan jaxaay ak yooyu. waaw damay joxe waaw mais plan jaxaay gis nañ li nga xamante ne moo ci moo ci juddu après la nga xamante ne moom la ñu annoncé woon. te mu waroon ko lijjanti lu wu ko ay problème la gën a indi waaye boo xoolee tey projet de gestion des eaux pluviales et de au changement climatique muy projet ADM di ko gérer gis nga ci cadre boobu dafa am lu ñuy wax écoulement dans le sens gravitaire mooy maanaam euh, maanaam ndox mi ñu wutal ko yoon boo xamante ne saa su ñëwee rek day wàcc dem yow am nga euh, fàttaliku ci Cité Soleil cité soleil lu lëndëm la woon loo xamante ne ndax soleil lu leer la. maanaam cité jant lañ ko daan wax waaye mujj gi foofu moom cité lëndëm la woon ndax saa yu tawee nit ñi ñu mën a dem daawuñu mën a dikk. mais ci cadre boobu lañ ko réglé définitivement moom ak problème yi amoon diggante Dalifort waaye ci la aussi étudier woon racine bi maanaam euh, fi mbir mi jóge ak lan moo ko sooke woon au delà du fait que am na foo xamante ne dañ fa sëkk dëkk. te foofu yoonu ndox la waaye euh, lak wuuy lak curuur lak waaruwaay lak mbëbës ba jam ñaajo dañu defoon étude bi xoolaat bu baax a baax structure lak yooyu ba pare ci la ñu installé woon ay dispositif permanent de pompage ak ay kano yoo xamante ne maanaam ay euh, gasal ndox mi euh, ay yoon yoo xamante ne dana ñëw sotteeku foofu foofu def rétention maanaam loolu moo indi njaago baar ñetti mbaar yëmbal noor canal bu mag boobu ngay gis euh, Tali Diallo ak yeneen zone yooyu yëpp ñu gis ci tane ak jàmm gën Sicap Mbao ak Medina Marème li tax ma di ko wax c'est parce que man nekkoon naa directeur technique Fonds de solidarité nationale entre 2007 ak 2009 donc zone bi lu ma xam la euh, zone boobu xam naa bu baax ci cadre plan d'urgence bi bu programme décennal de lutte contre les inondations xam naa effort yañ fa def ak niñ ci génnee waaye nag boo ko xoolee même au niveau mondial muy Allemagne ay dëkk yu mag. gis nga mbënd mi euh, jafe-jafe yi nga xamante ne yu tar yi nga xamante ne moom lay moom lay indi foofu donc du question boo xamante ne mën nga ne danga koy lem tout suite rek jeexal ko dafa nekk processus. te ci biir processus boobu nag du ñu mën a ñàkk saluer. jéego yi nga xamante ne état bi def na ko ci fukki at yu mujj yi. Mhm. mais fu mel ni ay Kër Massar ak yooyu lan mooy dëgg-dëgg jafe-jafe bi ba tax lépp li ngeen fa def comme effort mu taw yëf yi mel ni daal dafa naax saay ndox mi newaat. Euh, loolu da ngay remonter d'abord ci Kër Massar juddoo ak structure lotissement yi fa am parce que jamono yooyu dañ daan def sax ay lotissement provisoire mooy maanaam dañ doon wax nekk bu ñu defee station épuration bi nit ñi danañu mën a yeggale. xëy na euh, assainissement primaire bi nga xamante ne moom la ñu war a def mu jóge ci kër yi dem ba fi mu war a sottee maanaam dañ daan def lotissement ñu autoriser ko provisoirement euh, di xaar peut-être yeneen infrastructure en amont yi nga xamante ne fa la war a sotti ji yooyu sotti. Mm. en attendant nit ñi ñëw def. voilà léegi nag faf mbir mi di accumulé wu di accumulé wu ba foofu nekk finalement une vraie bombe mm. une vraie poudrière boo xamante ne en terme d'assainissement léegi boole ci euh, da ngay gis ñoo xamante ne dañuy nekk dañuy nekk ci ay zone basse nga xamante ne ñii ñeneen ñi dañuy verser seen ay ndox ci seen kaw maanaam euh, maanaam situation bu chaotique boo xamante ne nii pour régler ko dafa laaj restructuration urbaine te ci loolu nag la la ñu nekk waaye du problème boo xamante ne ci benn jour wala benn semaine wala ñaari weer ci nga koy régler loolu boo ko waxee rek boo ko defee rek dafay nekk dem démagogie mën nga régler quelques problème mais boo dajalee plusieurs années ci ngay mën a trouver la solution définitive que mu doon côté Camille Basse wala côté euh, euh, unité yi nga xamante ne moom la SNHLM defar foofu noonu euh, ak côté foofu noonu yëpp ba ba jëm njaxiraat ba ca kaw loolu yëpp lu am solo la loo xamante ne liggéey bu ay plusieurs années moo koy lijjanti. donc nit ñaa ngi ci nag projet 2 gis nañu li mu engagé te gënu gënu. Euh, xëy na peut bu ñu fa deful woon loolu xëy na li ñuy dund ni sax dana gën a tar encore euh, ñu moom moom la ñuy dund donc dañuy ñaan yàlla rek ñu yegg ci ak jàmm euh, fii ak peut-être quelques années au moins lu ci bëri danañu féete ginnaaw. waaye wax nañu ne xaalis yu bari yi nga xam ne ñu ngi koy tudd ci biir inondation yi dafa jur luy nuru luubal ndax yaakaar nga ni ñi wax ne yëf yi leerut am na fu ñu ko mën a wéer. waaw xam nga loolu moom daanaka nag wax dëgg yàlla boo xoolee ci. structure bi ni mu tëddee la inondation du mbir moo xamante ne benn département rek moo koy gérer tey ministère de l'intérieur ci am wàllam mooy maanaam affaire protection civile ak wàllu sécurité euh, ministère bi nga xamante ne dafa am en charge assainissement bi daf ci am wàllam ci réseau bi nga xamante ne moom mooy sotti ndox yu bon yi euh, ak eaux pluviales yi euh, ak ndoxu taw yi ñi nga xamante ne ñooy collectivités yi dañ ci am wàll parce que ñoom ci seen bopp ADM ci ñoom la dépende ñi nga xamante ne moom mooy aménagement du territoire donc même dañ ci am wàll. par rapport ak programmation bi ak gestion des risques bi urbanisme par rapport ak lotissement yi ak autorisation yeeg yooyu yëpp ku ci ne da ci am wàll. donc problème coordination boobu moo tax xëy na da gis wàll bi dem fii pàcc bi dem fële xëy na moo tax nit ñi war a mën a xalaatee ne que xëy na am na lu ci xaw a jaxasoo mais problème coordination boobu noonu naturellement euh, problème institutionnel la boo xamante ne ça s'est toujours posé am naa yaakaar ne. xëy na danañ ci trouver solution ndax bu njëkk ba aussi c'est vrai que primature moo daan centraliser la coordination de la matrice d'action prioritaire mooy maanaam euh, euh, plan yooyu nga xamante ne dañ ko war a lal pour que laata hivernage bi ñëw moom action yi ñu teg. li si tudd milliards yu bari nag. waaw non loolu non loolu dafa impliqué sax te milliards yooyu sax daf ciy dugg nag. Mm. mais xam nga milliards yu ñuy gas di suul. Euh, dafa di loo xamante ne day impopulaire bokkul ak milliards yi nga xamante ne da koy tabax muy génn ngay gis muy fés. waaye li ci suuf ba am solo donc milliards yooyu tout le temps da ngay xalaat ne ci suuf lañ ko suul te ci ndox mu te ndox ci ndox mu salte la jëm donc naturellement euh, du loo xamante ne euh, waaw lu ñuy teg bët te aussi du aussi loo xamante ne am na am na succès euh, comme nii tabax mu meññ nii Euh, mënee amee succès. ñu wax ci beneen jafe-jafe bu itam askan wi di dund muy accident yi jamono yi mu gën a tar rawatina ak nag gros porteurs yi du ma dugg ci nationalité yi pour ne pas faire de la discrimination mais daal gros porteurs yi moom ñu ngi def ay jéyee ñu ngi fàttaliku bi président de la république ñëwee euh, Tamba jëm Kédougou accident bu métti bi nga xam ne moo yóbbu sunu nattaango yi leeral yow itam nga dëkk Tamba di gis tout le temps gros porteurs yi ni ñu fay def lan nga jàpp ne tey mooy solution si accident yi surtout yi nga xam ne gros porteurs yi di camions ñoo koy waral. bon d'abord dañuy euh, ñaawlu ñaawlu li nga xamante ne moom mooy euh, euh, situation bi am mooy tali bi moom li muy rey kenn rey ko chaque semaine nga dégg accident bu doy waat bi ci Ila Touba la yenn yi particulier yi la yenn yi dafa impliqué ay camions yenn yi dafa impliqué transport en commun question bi dafa global waruñu ko jël di ko pàcc pàccal ndax bu boobaa dañuy yàq analyse bi euh, moo tax ma ne vraiment euh, am na lu ma dégg secteur général des transporteurs bi wax ko sànq muy wàllu air de repos yi mooy maanaam noppalukaay yi nga xamante ne dañu ko war di tabax ci buntu dëkk yi euh, muy permettre camions yi ñoom parce que ñoom it fu ñu gaaree dañ leen di dax donc il faut ñu wutal leen fenn foo xamante ne dañu fay mën di taxaw di mën a noppalu Euh, di mën a euh, utiliser toilettes yi di mën a dallu bu ko defee bu ñu jëlee seen xel gën a dal seen yaram gën a ki seen xel gën a nekk ci li nga xamante ne mooy seen liggéey mhm. mooy teewlu ci tali bi euh, waaye nag gis nañu ne que foofu am na état bi man mii damay def Dakar Tamba semaine bu nekk gis naa évolution bi am ci wàllu aire de repos yooyu ñuy tabax à chaque fois te mu ànd ak toutes les commodités te di permettre kii waaye am na leneen loo xamante ne war nañ ci xalaataat gis nga voie de contournement yi ñuy def ci dëkk yi day permettre nit ñi di wiiri te duñ jaar ci biir dëkk yi donc ñuy wàññi risques yi comme ça li nga xamante ne xewoon na Kaolack bu fekkoon ne voie de contournement bi la jaaroon dafa amoon xëy na peut-être loolu doon na mën a wàññi li nga xamante ne moom mooy risque yooyu man yooyu ci laay gën a euh, ñaaxaat di wax ne euh, Mbour Fatick Kaolack bi nga xamante ne engagé nañu ko bu ñu koy engagé ñu xalaat ci Kaolack mi nga xamante ne centralité la ñu mën a defaale ay voies de contournement même su fekkee ne que effectivement autoroute déjà voie de contournement la. jàpp itam ne daan yi xëy na diisul noonu ndax homicide involontaire daanaka li ñuy tëdd bariwul yaakaaroon itam taral daan yi mën naa doon solution. bon malheureusement nag xaw ma daan yi mu toll waaye sama xalaat dafa toll ci ne comme gis ne que à fois bu fekkee ne accident euh, dafa am bakkan bu ci rot chaque fois dañuy téye nit ki ma yaakaaroon ne vraiment lu ñuy topp la. Euh, wax dëgg yàlla loolu tamit lu jara euh, bàyyi xel la pour que daan yi euh, mën a doon daan yoo xamante ne dafa tolloo ak li nga xamante ne moom mooy gaañu gaañu bi am. ñu wax ci politique jeexalee foofu des Tamba ba tey élection locale yaa ngi ñëw gox yu bari xëccoo tàmbali faa feeñ foofa ca Tamba ñu njoxtu ne candidat nga à la candidature fu yëf yi toll ndax itam xëccoo ñàkku fa. waaw merci vraiment ni nga ko waxee noonu candidat la à la candidature mooy maanaam man la may def. ak ak initiative yi ma am génnul sama parti génnul sama coalition te xalaatuma mu génn sama parti xalaatuma mu génn sama coalition ndax man na gis nga dañ ma yaree noonu man lu ma lu ma bëgg dama cay xeex waaye yàlla may na ma maam kilifa te bu ma la tànnee ngay sama kilifa la ngay wax day am solo ci man tey sama sëriñ bee nga xamante ne mooy sëriñ Cheikh Bombali ca Touba bu ma woolu woon tey lu ma jàppoon mu ne ma ba dama koy bàyyi loolu kilifteef moo koy def sama baay bi ma jur te may ñaan mu yàgg fi te bu ma woowee fekk may xëccoo dara mu woow ma ne ma bàyyil damay bàyyi président Macky Sall mi nga xamante ne sama njiit la ci politique yilif ma ci politique ma tànn ko moom it mënuma ko tànn ba pare jox ko boobu cër mu di ma ñaan may bañ donc mais moom xam na xam na bu baax a baax dañ koy bàyyi aussi mu apprécier parce que jamono ji dafa changé ndaw ñi dafa am lu mu bëgg dafa am fu nu toll aussi structure population bi dafay compter mais engagement politique tamit bu ko kenn fàtte man li may def diggante Dakar ak Tamba ci route li may investir politiquement ci Tamba mënul jaas loolu moo tax ma yaakaar ne légitimement dama war a laaj li ma nekk urbaniste nga ma koy laaj sànq ci wàllu inondation dama jàpp ne war naa mën a servir Tambacounda servir suma coalition loolu moom moo tax may bëgg dara bu ma dee bëgg dara c'est parce que damay jàpp dafa légitime waaye nag terewul ku ne war ngaa mën a jiite nekk porte étendard man def ma fixation ci loolu euh, waaye nag la ma bëgg dama koy wax ba ñëpp dégg ko bu ñu ma joxee ma xam ne jox nañ ma bu ñu ma joxul ñu jox ma argument wala aussi ñu jox ma yeneen alternative yoo xamante ne war naa ci mën a servir. waa noo gisee nag ñi nga xam ne ñoom nee dañuy jël par la force njox leen ñu bañ leen a jox ñenn jàpp ne du discipline de parti. non loolu man jàpp naa ne du gis-gis vraiment taxaw buté ci dara noonu. Euh, du loo xamante ne lu naa ko man parce que man du sama taxawaay. bu doon sama taxawaay nag xëy na peut-être ma mën ci wax dara xëy na nag ñoom war nañu mën a ay raison yoo xamante ne yu valable la yu war a mën a tax ñu jël booba posture euh, loolu nag da leen koy laaj. loolu yaakaar yaakaaroon mën naa yëngal parti bi wala coalition bi. waaw mais xam nga loolu à chaque fois euh, que ñu jëm élection luy am la. mais à chaque fois aussi lu ñu mën a dépasser la dans le cadre de notre mm-hmm. am nañ ko fii expérience. Euh, investiture élection euh, législative yi yi jiitu yi yi yi yi ñëw après présidentielle de 2012 am na fi ci élection locale 2014 am na fi ci élection législative yi ci topp am na fi aussi euh, ci jamono jii nii mais à chaque fois bu ñu nga xamante ne président wax na ba wax ne nii la ñu bëgg a doxalee à chaque fois nit ñi aussi li ci ëpp vraiment dellu si nañu à la raison ñëw rejoindre le bateau ñu jël def benn say. dem li nga xamante ne mooy l'essentiel mooy gagné. Mhm. mooy doon laaj bu mujj bi coowal local yi itam euh, mbirum primo votant yi ak ni ñuy joxe certificat de résidence yi xaw na ko yëngal opposition bi nii da ngeen a bëgg a frauder foofu rek ngaar daajoo yëf yi loo ciy tontu. waaw mais xam nga opposition moom bu demee ba xamatul lu muy def rek très souvent noonu la ñuy doxalee. mooy bëgg a jël xalab mbir yi naan fichier bi xam nga fichier bi lañ fi yëkkati woon ne fiable euh, par ñu ñu ñu ñu dem fi ci dialogue. am fi ay points de convergence euh, yaakaar naa ne tey waroon nañoo mën a dem ci élection yoo xamante ne du am ay yenn euh, xel ñaar yi waaye xel ñaar boobu man dama jàpp ne dañoo bëgg dox li li xale yi naan dañu bëgg dox ci maayanu sénégalais euh, dox ci maayanu sénégalais yi nag moom mooy comme ñoom xam nañ ne que daanaka machine bi ñu nar a dajeel ay jël lañ ci nar a jël jëlee encore ay jël yu metti bon ñoom dañuy jiitu rek. ci wax jooju nga xamante ne moom mooy contentieux électoral. préparer défaite waaw préparer défaite bi. Mm. maanaam nag aussi préparer euh, sénégalais yi di jéem a dox ci seen xel wala ñu jéem a dox ci seen maay mais am leen tontu beneen mu nga xamante ne xale yee koy génne nañu bàyyi seen xel yi ñuy fooy. mais nangu nga ne quand même jafe-jafe am na ci yenn délivrance euh, c'est cadre résidence yenn gox amee bu jafe-jafe amee am na ko pour opposition mais am na ko pour pouvoir. Mm. ndax primo votant kenn neewul la nekk opposant yee ko moom primo votant yi ñëpp lañ fi nekkal. maanaam ñun ñi nga xamante ne dañ leen dañuy liggéey ak ñoom bu ñu amee booba jafe-jafe pour suñu yos ñoom dañu am pour seen yos donc loolu laa yaakaar ne même su dee dafa nekk loo xam ne gàllankoor la gàllankoor la pour pouvoir bi mais gàllankoor la aussi pour opposition bi jërëjëf Mamadou Kassé ñu ngi lay gërëm amoon mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM tey fàttali ni yow yaay directeur général bu SICAP SA bokk ci task force républicaine di bokk itam euh, ci APR ak benn Bokk Yaakaar ngay urbaniste aménagiste ñu ngi lay gërëm bu baax. jërëjëf Fatou ñu ngi lay sant bu baax ci dalal bi nga ñu dalal ci euh, euh, tey ci suba ci sa émission matinale bi nga xamante ne c'est très suivi di la féliciter également ci liggéey bi ngay def lépp ci matinale bi ci contribution yi. ci revue de presse bi maanaam daal vraiment ñi ngi lay euh, ñaanal euh, ci sa liggéeyu journalisme bi yàlla na ci yàlla defal jàmm defal la ci xéewal defal la ci lu kawe sa njort. amiin jërëjëf Mamadou Kassé moom la ñu doon dalal ci matinalu tey ci mi FM jaa ngeen jëf.